saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa sunu làmb mu def ab jàngat bu yaatu ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass fi bëre woon bëre bu metti digganteem ak Baye ba mettre ko en KO Gris Bordeaux borom double confrontation ba digganteem ak le roi des arènes Modou Lo Bordeaux borom combat bu ensanglanté ba digganteem ak Eumeu Sène moom la sunu làmb xëy fësal ci xët wu njëkk ba ne Gris Bordeaux la mu mosal Baye Mandione mosal ko Eumeu Sène est-ce que dana ko laaj ba mu xëy fësal ba xam ndax Gris Bordeaux dana teg lu metti Balla Gaye wala déet combat ba digganteem ak le lion de Guédiawaye ndax dana wex xaat ci doomu Double Less yi waa wala déet la ci am ba des mooy journal ba dellu siwaat na ci combat ba le 1 janvier boobee bés moom Gris Bordeaux dafa indi woon lu metti tegal ko Baye Mandione xeex bu méttee métti la ko tegal ba mujj koo mettre en KO digganteem ak Eumeu Sène bokk na ci combat yi gën a métti ci làmb ji keroog mel ni mbojjam gerte Eumeu Sène boobu ba léegi boo koy laaj déet lanu mën a jàpp ci boobule combat mooy bëre woon nañ combat na mu mujjee tàng na neex na waaye foofee amul benn yoon bu Gris Bordeaux la ba xam naka la wànne di mujjee ki gëtam naka la lamb ji di mujjeek saison bu bon bi ñu jógee ci 2019 2020 le journal ba xam le foofu mooy saison bu gàtt la am ba nu dalee bëre léegi ñu ngi doogo saison bu gàttee nii cinq mois de compétition la def ñi ci jot a bëri journée la am ñi ci jot a organisé te bile saison bëri nañ yoo xam ne bu ñu ko perte mooy raccroché nañ seen carrière bëri na ci combat yoo xam ne yi leen a ba beneen yoon bëri nay promoteurs yi ci dugal seeni xaalis xamuñu kan lañ koy jotaat te journal baa ngi xëy di àddu nit ñi naan leen saison yi dara wóoragu ci boobu saison ñu dëgmal tànk coronavirus jeexut ba génn ci réew mi kenn dootu ko xalaat muy promoteur di amateur di mbëri ñëpp dunde yaakaar képp la am waaye saison 2020 ci jota dugal seen xaalis di taxawali combat sax amaguñu lu leen leer waa Rufisque ña amoon lu leer ci carrière ko ca gàmmu géy da ñoom ñaar ñoo fa nekkoon ay espoir yu ñu gënoon a am yaakaar gannaaw papa yaada da dëdduna àdduna espoir Rufisque mooy gàmmu géy gis nañ ci moom ambition gis nañ ci moom avenir bu nu jàllee ca liiru jàndanu koy fekk ci sunu làmb mu def jàngat bu yaatu ci carrière am bi ko gën a ba ci combat bi ko gën metti fa mu tàmbaleeg la mu njëkk a li muy feyeeku jamono ci ña ko làmb booleeloon ak ña ko làmb booleel tey fa mu daan ak mbëree ko daan digganteem ak Lac de ak ñaata at la am ci làmb ak kañ lay bàyyi làmb lépp liiru jaan ñëw na ci sunu làmb bu ñu jàllee ci écurie Lansar dañ leen di fekk seen bilan ñu def bilan bu baax sept combats la ñu décroché victoire benn défaite te le bilan ba di baax baax seen ténor yi amul kenn ku ca jot a bëre ka ñuy wax Tidiane Faye professeur de Lansar kenn gisatu ko kenn déggatu ko moom professeur kenn xamul ci la ca États-Unis bu dee nees ak super étoile ñoom it ñu ngay compter seeni année blanche bilan bu baax boobee gone ya nekk ci équipe ba ñoo ko assuré Maama Lamine bu Lansar moo daan Jokkel Abu Ndiassé daan Tafa Gueye 2 Ferouz daan Jalabaan Fils de Max daan Maodo Kaana Caatu Fora daan Trompeur 2 seen benn defet ba Maadi moo daan Coppet ba léegi Quench ak Nekoré li kenn gisagu leen bu dee Max Mbergane la mu xamle mooy gagné sunu lambu door bi rekk ñu tax a jóg malgré saison bi bëriwunu ay combat bi li muy yées a fës ci yéenekaay bi ñu leen